a minnatun lana jariun aouzu billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla juli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku seen ñaan di am mbégte dellusiwaat ci seen émission bi ñu tudde Madinatu Ilmi ñu di ko amale fii ci seen sit bi ñuy wax 24 ñu nuyu mbokk yi nekk ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ñëpp ñi xam ne ñu ngi topp jataay bi yal na yàlla defar seen mbir te defar suñu mbir te yàlla sàmm nu teg nu ci yoonu siraatal mustaqim di siyaara baax soxna maam xari Mbàkke daal di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko di siyaara baax soxna moomi Kebe di ko ñaanal fan nu gudd ak wér di siyaara baax sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ maam Moor Falilu di sunu xarit di ñaan sunu kàddu fek ko ci jàmm ak feex ñu dellu siwaat ci jataay bi nin ko baaxoo def di waxtaane benn tomb tey ji ñu fas yéene waxtaane lu jëm ci wàllu tabaski xañ na duñu indi directement lan mooy tabaski ak ay atteem ak yooyu waaye dañuy wax rek ci weer wi nga xam ne mooy weeru tabaski ay ngëneel yu ci am yoo xamante ni ak yu ci nit ñi war a def yoo xamante ni yooyu lan bëgg a fàttaliku rek bu ko defee bu nu mënee àgg ci sunu maam Ibrahima ak soxnaam soosu ak doomam jooju am na luñ ci war a jàng ci ñoom bu waxtu wi may na ko lool la waaye ñu tàmbalee ci waxtaane ci bis yi nga xam ne ci la nu toll ci jamono yi nu toll muy fukki fan yi nga xam ne moo njëkk ci Tabaski di fukki fan yoo xamante ni yu ama am solo la yu itteel yu mag ci lislaam fukki fan la yoo xamante ni yonent bi salaa salaam nee na sunu boroom kenn jaamuwu ko ci fan yi gën fan yi yu ko gënal fan yi muy fukki fan yi ndax sunu borom daf ko fonk bis yi ba def ceewaat wal fajjari wala yaalil asri borom xam-xam yëpp nee na mi ngi ci jublu fukki fan yooyu fukki fan yi yi nga xam ne moo nekk ci tabaski am na ñu wax ne waat na sax ci fukki fan yi waataat na ci juróom-ñeenti fan yi muy biso xarafa ak bisu tabaski bi loolu lépp nag day wane rek màggaayu bis yi nga xam ne sun borom moo ko màggal bisi yi fukki fan yi wax na ne fukki fan la yoo xamante ni moo gën ci at mi mooy bëccëg yi nga xam ne mooy bëccëg yi gën ci at mi maanaam fukki fan yi gën ndax bisu arafa bi nga xam ne nekkaat na ci tamit doon ngëneel loo xam lu rëy la arafa bis bi bisu def lu baax la jaamu yàlla ci sikkar jaamu yàlla ci tudd yàlla lu bare bari am na saxaaba yoo xamante ni dañ daan toog ba bëccëg bu naaju tàngee ñu dem ci marché yi muy abo abo hurayra ak ki nga xam ne mooy abdullah ibnu abbas nee na dañuy tudd yàlla lu baree bari ndax marché xam nga ne ku fa nekk di jaay yooyu sa xel day génn ci yu bari waaye ñoom bu ko defee dañuy dem di tudd yàlla di sikkar bu ko defee nit ñi fàttali ko di tudd yàlla ñoom loolu lañ ci jublu woon muy bëccëg yoo xam ne bëccëgi koor lay tamit ak bëccëgi joxe saw ñaq ak bëccëgu dimbali ak bëccëgu def lu baax loolu ay bis la yoo xam bis bi ci gën a tee ëppati nga ne la muy bisu arafa bis boobu moom yàlla day bég bég moo xamante ni mu jégg day li wax xoolal sama jaam yi ñi taxaw arafa day wax malaaka xool leen sama jaam yi xool leen nin funjunge xool leen nin taqe xool leen nin mel xool leen xet gi ni yore xet gi ni yore moo dàq xetu miski te ku nekk xam na ne arafa jamono yooyu nga fay taxaw ab taqaay fu njóong sa yaram wi taq xet gi yooyu yépp waaye xet googu gépp suñ boroom nee na moo dàq miski xet googu suñ borom daf ci banneexu di wax ne xet la goo xamante ni gu neex la ci moom ni jaam yi tàllale seeni loxo di ñaan yàlla def ci bëgg na waa sama jaam yi lan lan bëgg ñu ne ko ah ñii di rek lan bëgg ñii ku leen kii njëggal mu ne sama jaam yi de tey lu ma ñaan rek dinaa leen ko may lu taxaw ñaan ma ko rek arafa dinaa leen daal di may loolu ku jéggalu ma jéggal la ku ñaan xéewal mañ defal la ku ñaan wërsëg ma defal la ku ñaan gudd fan lu waay ñaan rek dinaa la ko defal tey te yàlla ne xoolal te xool arafa taxawaay bi muy nuru day mel ni nit ñi dañoo nekk yomal xiyaam ñëpp weex tàll euh, funjoon taq di tàllal seeni loxo di ñaan taxawaay arafa xam ngeen ne aj gi sax ci la aj màkk nekk ci weer wi ci la aj màkk nekk ci la tabaski nekk kon bis la yoo xamante ni bis yu ama am solo la yoo xam ne nit ki ku ko mënoon fukki fan yëpp danga koy woor wala juróom-ñeenti fan yëpp danga koy woor yow mi nga xam ne nekkoo arafa yow mi nga xam ne aju woo loolu ngëneel la ci yow. bokk na ci fan yi tamit ay ngëneelam yu bari yoo xamante ni ko ci def suñu borom daf koy ful moo tax nit ñi waruñu ko sàggane ginnaaw. fukki at la yoo xamante ni sunu borom da lay jéggal bàkkaar yi nga xam ne defoon nga ko ci at mii yu ndaw yi at male di ñëwit da yàlla da lay jéggal bàkkaar yi nga xam ne yaa ngi ko ci def te defagoo ko ci kon xam ngeen ne at la muy raxas nit ki di ko laabal fukki fan yi fukki fan la yuy laabal nit ki di ko raxas di ko génne ci bàkkaar képp koo xamante ni nag da ngaa bëgg a tabaski te ngay góor te ngay mukallaf wala nga nar a tabaski aaye nan la nga dagg say liwee nga lelleeku wala nga watu lu ca bisu tabaski ba waaye lu ko jiitu bu la leeree ne da ngaa bëgg a tabaski moom waroo dagg say we waroo lelleeku waroo def dara waroo wat sa bopp tamit wàññi sa benn karaw loolu bokk na ci li ñu yëwénal bokk na ci fukki fan yi tamit muy tabaski mu doon bis yoo xamante ni bis war a fonk la ndax euh, sunu borom mi nga xam ne moo digal Ibrahima Ibrahima xam ngeen ne dafa gént sunu borom digal ko ne ko rayal sa doom ji ndax doom ja dafa takkoon ci xolam xam ngeen ne ku dem ba am juróom-ñett fukki at amoo doom loolu jarul wax ku ñëppay xam ne sa doom doom jooju di nga ko bëgg koo xam dem nga am juróom-ñett fukki at waaye yàlla Ismaayla ci fiiram gi nga xam ne yàlla bëggut a bokk ak kenn ndax Ibrahima dafa bokkoon ci tawxiit ñi ñi am tawxiit ñi gën a am tawxiit ci ci nit ñi mooy Ibrahima ndax gis ngeen ne da doon taxaw bu weer wi génnee mu ne lii mooy sama boroom bu jant bi génnee mu ne lii sama boroom ba di ñaan yàlla mu gindi ko ndax xam na ne moo tax sunu borom ak gëm yàllaam ak tawxitam moo tax inna kaana Ibrahima umma Ibrahima ak gëmam gëm ak umma la mbooloo la moo tax sunu borom wax ne Ibrahima inna kaana Ibrahima kaana ummatan muy e, yonant bi nga xam ne sunu borom da ko géntuloo dafa gént borom xam-xam yi nag nee na géntug yonante moom dëgg la lu gént rek dëgg la. maanaam bokkut ak nit ñi suñ borom ne ko rayal sa doom ji bi ko suñ borom waxee mu daal di dem jubal ci ki nga xam ne moo di soxnaam wax ko soxna si ne ko waaye ah, defee ko nii la ko yàlla sante mu dikk ci doom ji wax ko doom ji tamit ne ko defee ko ko la yàlla sant loolu nag ci leen jàngat bi war a nekk mooy ñun Ibrahima bu fekkoon yàlla mayu ko woon soxna su baax soxna soo xamante ni su su am tawxiid la su ko waxee loolu yaakaar naa ne. dana ko tàcc ñetti tàcc wala dana ko tàcc ay tàcc yu bari wan ko ginnaaw ne ko loolu du fi mën a nekk waaye ci suuturam ak ci yaram ak ci nit ku baax gis nga nam ko waxee ne ko ginnaaw ndigalal yàlla la daal ñun amuñu ci benn àtte defal le la yàlla sant bi mu dikkee ci doom ju doom ju ndaw moo dikk wax ko ko ne ko sun borom dafa wax ma rey la mu ne ko ah loolo de bàyyi ànd naa ci àndin wu rafet woo xam ne wu jéggi dayo la te loolu boo koy defit na nga ko def na ko teele def ko nga xam ne doom je position yi mu ko wax ne ko bàyyi bis booy rendi rek na nga wut lu lu ñaw a ñaw nga xam ne booy rendi day cib gaawaay day gaaw te loolu dañ koy wax borom xam-xam yi dañuy wax ne yonent bi salaa salaam da koy aaye rendi lu ñëwul ndax diggante boobu ngay lottal xar mi bëgg nan nga gaawal ko lool ndax loolu dafa bokk ci ay bàkkaar sax lay doon moo tax rendi waat bi bi ngay rendee war naa waroo xar mi tamit boo koy rendi wut meneen xar mu nekk ci wetam nga rendi ko déedéet boo koy rendi meneen xar ma dafa war a nekk fële bu fekkee da ngay rendi lu man ñaar waaye wóoroo ko rendi ndax rendi dafa metti Ibrahima bi muy rendi doom ji doom jooju bu fekkoon ne du doom ju nu yar jàngal ko tawxiid jàngal ko diine jooju doom jàpp naa ne ku ko bëgg rendi boo muy tuum mu rendi la waaye fekk na doom ju defaru la baay bu defaru yaay ju defaru doom ju defaru xam nga ne tey jii suñ kanam rek waxuma la heure boobu waaye heure tëbaski bisu tëbaski nga woo sa doom ne ko damaa bëggoon tey ma yónni la ci benn dëkk waxuma la nga rey ko de waaye bisu tëbaski nga ne ko damaa bëgg ma yónni la masala ku nekk Touba ne ko damaa bëgg tey ma yónni la ci dëkk àll yi nekk Saalum Kaffrine ci bisu tëbaski la muy wax rek mooy njëkk wax bàyyi te mënoo woon a bàyyi ban julli ba noppi wala ba ca ëllëg sa wala nangam segam loola rek la kooko di gàntu iskamaa rey bi mu koy rey daf ko wëlbati suñu borom yonent bi salaa salaam yonent yàlla Ibrahima dafa wëlbati kii ba ba loj ko ba nga xam ne bët yi du gis doom ji sara ko wax ne ko boo may rey nang ma takk bàyyi na nga takk samay bët ndax xam na diggante xolu njufere njureel bi am ci ñoom xam nga ne doom joo xamante ni moom it baayam dong la am moom la njëkk am ci doom ak baay boo xam ne yaa ngi soog a am doom juróom-ñetti fukki at nga soog a am doom yooju doom faaw mu takk ci sa defalee ndigalu sunu borom ci la sunu borom wàccee am xar moo xamante ni ne ko yóbbul malaaka yi yóbbul leen ko Ibrahima muy am xaram te kooke mu wutal ko lool moo tax jigal jëfe ndigali borom bi yàlla yi eh, amul amul amul lu la ciy fekk amul musiba mu la ciy fekk maanaam ndigali yàlla ku ko jëfee rek li Ibrahima ni ko sunu borom aare aar ko ba doomam jooju rëyu ko aar soxna am ba amut benn gànt aar doom ji ba amul benn gànt mu remplacer comme xar yeneen yi ci des yëpp noonu la mel ndigali borom sunu borom moom baay ba lam doon sañoon a sant doom ja mu bañ mooy mu sant ko lu dul ndigali sunu borom lam naroon waroon a sant soxna sa mu bañ mooy mu sant ko di lu dul ndigal foofu dinañ ci jàngane eh, kon nit ki kenn du ko def looloo xamante ni du ndigali yàlla kenn du topp kenn ci lu dul ndigali yàlla. Ibrahima bi mu dikkee waxu leen ne leen dama ko bëgg a rey waaye daf koo wax ne ko yàlla moo ma ko digal gis nga ñoom fi ñu tegoon digali yàlla yi bi dikkee dane ko soxna si yàlla moo ma ko digal Ibrahima mi koy def moo ko gën a bañ waaye ndigalul yàlla ak lu mu métti métti ci xol dañ ko war a def lu mu diis diis ci yaram dañ koo war a def lu mu metti metti dañ ko war a def kon loolu xamee nga ci ne ndigali yàlla yi rek moo ko jar waaye leneen lu dul ndigali yàlla nag bu buñ la ko waxee am nga ci xalaat am ci loo ci xal moo tax bi mu ko waxee yàlla remplacé ko am xaaf mu doon na su dëgër nag tabaski na la soo xamante su dëgër dëgër waaye nag du force ku ko man sax man ngaa am mën a jënd xar man koo rey ba nopp bu la neexee nga bañ a tabaski bu la neexee nga bañ a tabaski tabaski sunna la su dëgër nag waaye bu la neexee nga man ko ba noppi bañ koo def kon coono yi ci nit ñi jànkoonteel loolu day wane ne danoo xamul rek li ñuy jànkoonteel ak coono yi jëru ko ku ko man ndax bis boobu di fukkeelu fan bi yàlla nee na kenn jaamoo ma ci lu gën tuural ma deret deret ji rek la yàlla bëgg ku ko tuur moom rek lañ ko ciy jaamoo xar mu rëy meeg xar mu tuuti meeg xar mu na na fekk mu mat tëbaski rek tëbaski nag dinañ ko defee ci xeet ñeenti xeet yi muy gileem nag xar bëy yooyu yëpp dinañ ko ci defee xar mu góor ak xar mu jigéen yëpp dinañ ko ci defee lu ci nekk daal mu matee te amul benn ayib lu nu war a tabaskiyee la borom xam-xam yi nag dañ cee wute am na ne xar moo gën am ñu ne eh, gileem a gën waaye ñu bari danoo wax ne gileem moo gën ndax moo gën a seer li ngay defar yàlla lu mu gën a rëy rek fay gi gën a bari. moo tax yonent bi salaa salaam rayoon na ñaari xar lii maa ko sama xeet yi nga xam ne amuñu menn mi sama tabaski la menn mi ñi amul tabaski. kon ñi amut la wax ki amul nag dara war ko tabaski nag sunu mag ñu baax ñi sëñ Fallou waxoon na ci ñaari baat sëñ laat waxoon ci gis nan fii ci dëkk bi dangay gis ñoo xamante ni dañuy sonal lool sëñ Saliou waxoon ci sëñ Saliou nee na woon man de tabaski yi ñuy indi ak su kii koy xawma ko woon ci yoon wi dama ko xamul ci yoon wi dama bëggoon ñu bàyyi ko loolu la ci jublu woon waaye taxul nag wax dëgg yàlla nit ñi bàyyi ko nee na laaj ay tabaski ak joxe tabaski xaw ko ci yoon wi kon nag nit ñi ñoom ñoo ko sa tegool seen bopp xamuñu nag lu tax ñu tegool ko seen bopp laaj gu ëpp gi xamuñu lu mu doon joxe gi tamit kenn xamul lu mu doon ndax ki fi toogal sëñ Tuubaa di sëñ Saaliw neen xamu ko beneen bi ci desaat sëñ Fallu Mbàkke daana ko wax euh, ndax nit ñi dañuy sonal ñooñu kilifa yooyu euh, tey boo demoon kër sëñ Muntaxaa fi mu toll ma nga fees dell ndax ay nit ñi laaj si tabaski ñii di indi ñii di laaj si coono yam cay toggante nga xam ne dina joxe moom tabaski yin ko joxoon ba jëndaat jëlaat xaalisu boppam jëndaat ko ay xar loolu naka jëkk ko xam sëñ Muntaxa am na noonu lay defe loolu nag coono la boo xamante ni sëñ saal Saliou wax dëgg yàlla woyofaloon na nee na xaw moo ko woon ci yoon wi sëñ Fallou nag boo ko masaan wax nit ñi dañuy taamu ah, xaru tabaski laa bëgg xar ñu jox la am xar kooko dikkaat ci moom ne man xaram yar laa bëgg sëñ Fallou ne ko xaram yar moom ñi ma yar laa koy jox xaram yar ñi yar laa koy jox kon ku nekk nag da nga xam loolu xam nga ne coono la sëñ Abdou Lahad buñ ko masaan a àkk di ko laaj tabaski di ko laaj nit ñi ak si di ko laaj danaa leen may leen ma tekk te dal am ak dal ba ñi nga xam ne seen bàyyee tax ñu jox ma ko ma jox leen ko soog soog leen a jox kon loolu xam ngeen na xaw naa metti tamit ginnaaw dañ koy song ba moom mu ne leen na ngeen am ak dal ak ak tey ba ñi ñi nga xam ne seen baay a tax ñu may jox tabaski ma jox leen ca bu ma leen ci joxee bu desee ma jox leen a jox waaye mënuma leen a jox kon tabaski ay xeeti coono yu baree bari nit ñi jànkoonteel nañ ko ci gàddu ko ci ba jéggi na dayo te jaru ko woon nag jaru ko lu baax la waaye jaru ko woon am na yeneen yu baax yoo xamante ni mën na ko kon euh, fii la ñuy taxaw xañ na dina dellusiwaat ci wàllu tabaski yàq yeeg lin ci jigéen ñi def ak góor ñeeg yooyu yëpp ñu ko man góor ku ko man ak jigéen ju ko man nag war nga koo def jigéen ju man war nga koo def ndax yonant bi da ko digle woon ndax sunna sun maam Ibrahima la waaye yonent bi da koo feddali digle ko bokk na ci borom kër gi bu ko bu ko neexee moom it daf ci comme nin waxoon fukki fan yi dañ ciy woor bu xëyee ci bisu tabaski te mën naa woor ba nur lewetal xar mi ba lakk res ñu jox ko ko mu soog a dog waaye bis yi daal bis yi ngëneel la yoo xam ne moom moo gën a jar a ndax bis la yoo xamante ni at mi rek lay ñëwaat te arafa ci la nekk arafa nag bis boobu ëpp naa sàggane làmmañ ñi daa war a tooy xépp ci tudd yàlla làmmañ ñi dafa war a waxtu yooyu daanaka waxtu la yoo xamante ni kenn kenn kenn waru koo neenal ci neen war ngaa wéet di ñaan yàlla di jéggalu yàlla di ñaan yàlla di jéggalu yàlla ndax bis boobu kat yàlla dina ci am mbégte moo xamante ni ak di jéggale jéggal goo xam ne ci kaw nag ñi ko doon ñaan ak ñi ko jéggalu ci lay jéggal ñu taxaw lu fii sant ñëpp gërëm ñëpp baalu àq ñëpp Baye Moussa moo nekkoon ci caméraman bi ki nga xam ne moo doon réalisé émission bi soxna Awa Ndiaye ki ko doon monté di euh, soxna Khady Niang ñu jox leen daje ci yeneen jotaay wa salaamu aleykum wa rahmatullah murtajan minnatun lana jariun